صبور خالص الأعمال والأقوال ما يلين الجنب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رضي الله عن خليفتي مولانا وشيخنا شيخ أحمد التجاني رضي الله عن وارث سره مولانا وشيخنا شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه ونجي سنتي على sant yàlla في baax بونتو ايروبور كانو دي خار غاني ني اكسي avion bi jógee na Lagos xam naa fii ak 45 euh, minutes rek dana agsi bu soobee yàlla incha allah maa ngi nii ànd ak ki nga xam ne mooy président comité bi bi organisé gàmmu gi fii ci kanu di imaam Mouhamed An Nasir Adam mu ngeen xam muy borom xam-xam bu mag di imaam bu mag fii ci biir kanu di conférencier bu mag a mag a mag boo xam ne euh, daanaka ci àdduna bi fu nekk mu ngi fay def conférence mi ngi war a ñëw Sénégal sax def si fa conférence incha allahu taala. Euh, ñi ngi fii nag xaar mooy doomi Mawlana Cheikh Ibrahim Niass yi nga xam ne seen bés yi baay moom lañuy ñuy màggal fii ci kanu gannaaw bi nga xamee ne màggaloon nañ ko semaine ñaari semaine yi passé fële ca Taïba Niassène euh, muy gàmmu guy moo juddu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ñu ñëwaat fii ci Nigeria gannaaw ñaari semaine pour defaat gàmmuwaat taalibe baay war fee daje lu war ëpp dana jege lu ëpp 15 millions dana fi war a jege yoo xam ne danañ teew fii te li leen tax a teew fii du dara lu dul bési Mawlana Cheikh Ibrahim Niass boobu njabootam la ñuy tertu ñu war a ñëw léegi ak si léegi incha allahu taala ci délégation bu takku délégation boo xam ne war nañoo toll ci juróom-ñaar fukki nit ñoo xam ne njaboot ak bàyyi ñoo leen jiite ci ndigal xalifa bi Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane danañu agsi fii léegi incha allahu taala soobee yàlla xalifa bi ñu ngi koy ziare di ko nuyu di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ak eh, yàlla may ko wér waaye ñu ngi am yaakaar rek ba tey na dana agsi waaye eh, loolu mi ngi aju rek ci santé bu ko ko santé mayee rek incha allah am na avion boo xam ne mi ngi gaaree spécial pour dem jëli ko bu fekkee ne wax na waaw rek bu soobee yàlla jet privé bi dana fi déparé dem jëli ko ko incha allahu taala affaire bi daan nuñ ko tëralee yëpp ñu ngi koy ñu ngi dox comme nuñ ko kii fi mu ne nii sax ñëw nañ ci aéroport pour bëgg a terte doomu bàyyi yu bàyyi ko Kaolack ñëw pour affaire gàmmu bi waaw loolu moo ñu fi andi léegi. comité d'organisation bi ñaata commission la am. ni ngeen ko séddalee pour ñëpp nekk def li mu war a def. non lijaan bi xam nga am na lijaan boo xam ne dafay xool gëstu ci affaire yi xaalis. am na lajna boo xam ne dafay gëstu ci affaire euh, dëkkuwaay bi ak euh, ñam bi am na boo xam ne dafay gëstu ci affaire euh, oto am na boo xam ne dafay gëstu ci affaire conférence xam-xam am na boo xam ne dafay nekk ci affaire daal alaqa al ama pour jotal relation am na ba nga xam ne itam moom daanaka affaire ilaam la pour communication waaw daanaka daal li ñoo gën a rëy ci lu suñ lijaan yu ñu amoon pour doxal affaire yi ijtimaa bi te itam am na majlis shura bu nga xam ne mooy doxal affaire yi tijaan yi fii ci Kano defi jamono khalifa la fi nekkoon moom itam bokk na ci lajna la ci liggéey bi parce que dafa ñu lu ñu waxe taqawim dañ dafa ñu diis dafa ñu diis waaw dafa ñu diis ci léegi-léegi mu diis ñu def leen nangam moytu leen ci nangam waaw. gàmmu bu Kano daanaka spécial la euh, gàmmu bi bii mooy gàmmu boo xam ne def nañ ko gannaaw bu xalifa Isaac Rabi yu gaañu te itam Kano moom moom Cheikh Tidiane ngay ndeysaan dafa mu soon a wax. mune mom moom Kano la bëggoon mu nekk place gamu Baye parce que bi moy capital fayda bi mais nak nit ñi ñu ne baax na loolu dana mëna am mais nak légui nañ ko seddale région bi rek mu jël walam bala loolu sax mu nekk ci Kano rek mais loolu moo tax gàmmu Baye ci Kano leneen la. وصلى الله مدى صفات الذات بهما وصلى الله ما دام صفات الذات بهما على أصل الأصول من بني عدنان برهما ngeen ma laaje ku ngeen àndal dinaa leen wax ni baraham ma ku ngeen ma laaje ku ngeen àndal dinaa leen wax ni baraham ma ku ngeen ma laaje ku ngeen àndal dinaa leen wax ni baraham ma ku ngeen ma